julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen di di leen di tatagal di leen di seen bés bi bés bi nga xam ne bés la ci bésu yàlla yi muy bés boo xam ne bésu lislaam la bés boo xam ne bésu ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu nit ki mën a jógee ko muy góor muy jigéen muy mag di ndaw ñu gis nañ leen ñu ngi leen di naan wa rahmatullahi wa barakatuh, ñu ngi sant yàlla bu baax baax ndax dafa am lenn rek loo xam ne daf maa xaw a daane tuuti fa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man tasabbaha bi qawmin fa innahu minhum Cheikh Abou Bakar wa jazakallahu anna xayran sànq ba mu jëlee kaddu di wax am na ñoo xam ne ci biir mbooloo mi ñu ngi gëstu xam nañ ni xaqiqatan du Cheikh Mouhidine moo toog waaye est kii di wax lii du rak ci Cheikh Mouhidine wala kii de am na fu mu jële ci Cheikh Mouhidine loolu nag soo ko gisee mbëggeel mooy mel noonu la sëriñ bi loolu moo taxoon coonoom gi ci àddina gi yépp loolu la woon moo taxoon benn waaye da doon ñëw ci dëkk ba mooy Medinatu Saay mu yéemu ci réalisation yi nga xam ne sëriñ bi mu koy def ci biir dëkk bi muy jàpp gémmiñam ñëw ba ci sëriñ bi ne ko Cheikh Mouhidine xol sedd na lii nga def ci biir dëkk bii ci école yi ci tabax ci jumaa yi ci centre hôpital yi ci lépp ci lan ci nangam ci nangam mu ne nit ñi kontaan ci yow bu baax a baax sëriñ bi dafa yëgal boppam mu ne ma man lii jógloowu ma daf maa dab waaye lii man jógloowu la ma jógloo mooy ma fexe ba benn le baat yi te mooy majjul islam fi tawhidil kalam fexe ba jullit yi yëpp bokk benn objectif te mooy baatu laa ilaha illallah amatul beneen sura baynahum ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ko sonna loolu amut luñ ko waxul ci àddina tuumal nañ ko lu nekk wax nañ ko lu nekk waaye nag booba tawxiid mu ngi ca moom xent nañ ko segg nañ ko ba mu nekk Muhammadul Amin ba mu nekk Muhammadul Moustapha ba mu nekk Muhammadul Muxtaar keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jógee koo Makka di dem Beytul Maqdis war a jógee koo Beytul Maqdis di dem ci Malaul Aala mu ànd ak jibril alayhi salaam ñuy feey ci géejëb yàlla yi ñuy dem ñuy dem bo jibril ne ko yaa muhammad wa ma minna illa lahu maqaamun maalum fi mu nii fa ñu jógee ko ba yegg si fii fii suma mission fii la jeex suñ diggante fi mu nii yow dong ak yàlla yaa ngoog yoon waa ngoog Mouhamed gestu droite gisul kenn mu gestu gauche gisul kenn mu teen gisul kenn mu ne ah insaaniya bugg a ñëw ci moom mu xam ne pour mu xamale ku ne yoon wi kat est-ce que moom mosta fi jaar ndax mosu fi ñëw yàlla ñu benn baat niru la ko ak Aboubacar as-Sadiq ca kaw ne ko yaa Mouhamed tafaddal mu mel ni Mouhamed ne éet ndeke man fi ma toog nii di xaw a nii ndeke Aboubacar mu nga sa kanam di ma xaar kon kay fa lillahi alhamdu kon Cheikh Aboubacar su yëkkatee kaddu kaddu gi mel ni comme kaddu yi see dañuy naan ne rek min huwa ilayhi yàlla ñu ko yàlla fayal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa Eh, fadilatul imam nu raxibu bi ka ñu ngi lay ziyaar bu baax di la ñaanal li nga xam ne moom la yàlla teg sa kaw yal na la ko yàlla gën a oyofal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñi nga xam ne jël nañ fi kàddu ñu ngi lu seen kàddu yi di leen di masawu coono ndax xam nañ ne lii coono la waaye coono la boo xam ne loo ci def rek yalla daf lay pointé amul lenn lu jaam di liggéeyal yàlla lu toll lu misqaala zarratin loolu yalla dina la ko pointé yowmal qiyaamati dina la ko fay kon loolu su amee ñu ngi ziyaare euh, Jawrin Badiane ci présentation bi nga xam ne moom la def ci mbooloo ñi nga xam ne ñoo ànd ak kilifa gi ñëw fii ci Kaffrine Ndouckmane ngir diggante mbokk ak mbokk waaye diggante xarit ak xarit way serak gan sa rat ak mat way di gan sa dom ak bay way di gan sa dom ak li dongol kon bala may ganel ma al mursid omar ibrahim dama remercier suñu mbokk momale saw minen ma chal minna minen ma allah ke dar na ndene ndari don doy ndar kafri fulbe fo mel wallahi kala ɗo wiya fullo tan fulɓe mbeldima te ko ɗum wonɗo ko gandanɗa hoorema che mohsidin mo in yiɗno no feewi o meeɗa jooɗo e yewtere sowona ma o yettir konngu hay so tawi ko konngu ɗiɗi sa o weddo hen gam no fomtiri kula kulayaago gam no fomtiri leñol gongol gandanɗa hoorema ko hen gonde o jooɗo tan o wiya haɗa yorri no pullo hana tuusireedu dulu kullo hana huli allah lo kullo ka jambar lo kullo ɗum noon so tawi neɗɗo waɗi ɗum tan ina wayno an ko gonɗa ko haɗa ɗum yiɗi haɗa ɗum fonkte so dakirima e nder lesdi ndi ɗi gonɗen kala hande ɗo kelifo woni hande so wona pullo tottuɗo ɗuɗun o ko pullo wonata nden noon sayyidina muhammad sallallah alih wa sallam ko heddi ko woni yo en nganndu homo gondunoɗen yo en nganndu homo woni cheikh mouhidine yo en nganndu cheikh mouhidine ko dewowo allah wonɗo yo en nganndu ko jogiɗo ko fof ala heen ko no woni fof na ɗum akkiɗo mbo ɗum akkiri ceeh ibrahim ibnu cheikh mohidi radiallahu anhu yo allah waɗanen jam yo allah ayni ɗum allah ɓooyni ɗum yeeso men allah ɓokku ɗum cellale sellireede yo allah juulno duuɓi mum moƴƴina bartande mum yo allah bartin hadara mon o ya bartinelaaɗo allah mouhammed salllah alayhi wa sallam woma dalika allallah bi andi wassalamu aleykum wa rahmatullah sérigne man suba dinaa wuti oustaz bu séeréer waaw parce que pël yaa ngi tàkk suba nañ wuti oustaz bu séeréer parce que yëpp yi gis naa ne léegi daal parce que pël yi dañoo bari léegi war dum doon moom rek kenn xamut